gis nga réew bu amee ay charte yoo xam ne jël na ko li nga xamante ni intérêt àdduna bi la intérêt Sénégal la euh, ñu xam ni propagation mën na fa jaar yoon arrêté ni bu kenn def lii bu kenn def lii bu kenn wax lii képp ku ko def képp ku ko def yoon jàpp la ci nañ la teg ci yoon parce que loolu mooy dëgg nit bu buñ la nee bàyyil bàyyil jàppal jàppal mbir mi nag dafa nekk li nga xam ne dafa lëmbee àdduna bi waxuma la Sénégal mais dafa lëmbee àdduna bi wërngal këpp kon nag tey bu ñu demee ba gis ay nit yoo xam ne ñu ngi jël ay nit di leen transporter ci ay région di leen yóbbu ci ay frontières ñooñu moom bu leen jàppee na yoon def seen liggéey. Euh, respecté rek euh, charte yi nga xamante ni état jël na ko donc ñu ciy jiital le président de la république mooy charte yi nga xam ni jël na ko. pour que euh, vraiment waxuma la deux sax mais Sénégal yëpp mën a nekk ci jàmm donc respecter aussi euh, li ministère de la santé santaane ci ay digle ak ay tere ñu def digle yi bàyyi tere yi euh, respecter aussi suñu ministre tutelle euh, di monsieur Oumar Youm mi nga xamante ni li ñu jot li deux roues mas a am ci Sénégal nga xam ne ministre bi nga xamante ni woo nañ ko mu ñëw wuy mu ñëw wuy suñu c'est la première fois ñu am ko ci ministre muy muy monsieur Oumar Youm. tey xale yi nekk ci ay difficultés difficultés yi mooy tey. seen arrêt dafa dafa dafa dafa dafa dafa ñëw rek taxaw complètement parce que moto bi yeb benn nit ñun la bul yebati nit nga nga yot ci sa njaboot ak yu mel noonu ñu la ko waxee dafay metti euh, donc xale yi sonn nañu ñi ngi ci ay difficulté euh, te am na nag loo xamante ni tey euh, président de la république dégagé na ko le ministre suñu ministre tutelle dégagé na ko te xam nañ ni dina ko def ñun xam nañ ni dinañ ko def xale yi nag ñoo xaw yàkkamti ndax ku xiif ak ku sonn mais li ñu xam ci moom ak li ñu gis ci moom xam nañ li mu wax bu soobee yàlla dina ko def donc maa ngi wax rek ni ko lépp lu muy def aussi na ci gaaw na ci gaaw mu mu gestu xale yi nu mu gënee gaaw ñu ngi koy tàllal nag suñu ay loxo ñu ngi koy tàllal suñu ay loxo bu baax a baax a baax a baax ndax am nañ ci moom confiance te xam nañ ni loolu dina dina ko def nee naa xale yëpp nañu toog ànd ak dal léegi nag amoon naa ci aussi beneen xalaat beneen xalaat bi ma ci am mooy euh, mbirum xaalis moom bu xasee ba jóg kenn ku nekk da ngay jóg naan man maa jiite fii man maa jiite fii man maa jiite fii mbir mi nañ ko nañ ko na am transparence transparence bi nga xamante ne mooy xalaat bi ma ci am mooy par exemple ñu liggéey ak les gouverneurs liggéey ak les préfets euh, suñu représentants yi nekk ci les quatorze régions et les quarante cinq départements su ko defee association yooyu yëpp ñu dajif ñu daje foofu bu ñu fa dajee indi seen ay liste su ko defee la nga xam ne jox nañ ko ci région ba mu jël ko séddale leen ko ñëpp yem ci même pied d'égalité parce que bu ñu deful lu mel noonu rek euh, yàqu-yàqu mën na ci am ñaaw-ñaaw mën na ci am et ensuite xel yi mën nañu jiixi jaaxa euh, donc loolu daal euh, vraiment nekk na lu am solo loo xamante ni daal bëggoon nañ ko wax di xamal tamit le président de la république xamal ni ko résoudre depuis. 2011 ba jusqu'à nos jours mi ngi liggéey di ko accompagner di di def ay campagne de sensibilisation sur la prévention et la sécurité parce que boobu benn ministre mosuñoo faale donc noo doon jël suñu ay moyens bopp di ko def pour xale yi vraiment mën a moytu ba pare nag aussi euh, li may wax aussi du ma ko nëbb mooy xale yi def nañu ay campagne de sensibilisation pour jàppale ko Euh, ndax projet yi nga xamante ne am na ko ci le plan Sénégal émergent xale yi dugal nañ seen euh, ay loxo accompagner nañ ko jàppale nañ ko ba yàlla defal na ko li nga xam ne moom la doon wut ci Sénégal.